auzu billahi mina saytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim su ak nañuy jaamoo yàlla bi ñu ko yónnante bi leeralee ba noppi ba jóge fi nag ñoo ngi koy mën a xamee ci wenn yoon te mooy ñu jàng xam-xamu diine xam-xamu diine ci la ñuy mën a xamee tawxiid ci la ñuy mën a xamee itam nu ñuy jaam yàlla jaamoo yàlla tabaaraka wa taala xam-xamu diine mbokki julli yi dafa mënta ñàkk moo tax Seex Muhammadul Muntaxa diñ ci soññ waxtu wu nekk di jàng di jàngulu di tabax ay daara di dimbule daara ngir xam-xam buy jàngale xam-xamu diine buy jàngale nu ñuy jaamoo yàlla des fi ngir yitte jum ko jox ak xam gim xam solo sim am waaye loolu itam ma ngi ko jële ca maamam muy abdullahi wa xadimu rasulillah moom meene woon bu leen sobental xam-xamu diine bi leen di xamal nu ngeen di jaamoo yàlla di leen xamal seen faratay jëmm daal ne ngalawaay sëriñ bi mooy wax mu ne ngalawaay bu leen ko beggantal na ngeen ko fonk te jàngi ko ba mën a xam seen euh, faratay jëmm doonte ne sax dangeen ngeen koy jàng ci làkk wi ngeen nàmp moo xam muy wolof wala séeréer wala bambara waaye làkk woo xamante ni man nga caa xame sa faratay jëmm sëriñ bi nee na nanga ko ca jànge moo gën mu teg ca tëkkoo nag moom sëriñ bi ne wa man lam ku nanguwut a jëfe ndigal lii ma ko wax xanaa sàggan wan xam-xamu diine ginnaaw ba xamut faratey jëmmam nee na wa man lam ku deful loolu ëllëg bis penc falaa yelu mën na illaa sax bu mu yedd ku dul boppam te loolu nag ki ko wax kan la mooy sëriñ bu mag bi ñu mu ko jëmale mooy mbokki taalibe yi soññ leen digal leen ci ñu jàngi ba xam seen euh, faratey jëmm nee na doonte ñu ci làkk wi nga koy nàmp wi nàmp nga koy jànge demal nga jàng ko ci boo ko deful ëllëg boo yedd ak réccu bul yedd kudul sa bopp te réccu googu itam yàlla nañ ci yàlla musal te dara weesoogul nag ci xam lu yu mel noonu kon xam-xamu diine boobu nag moo ñuy jàngal nu ñuy wéetale yàlla tabaraka wa taala ngir moo xamee itam yitteel ak seex muhammadul muntaqaa la bari na lu muy rot ci ay waxtaanam ci soññi gum ñuy sàññi ci ñu xam yàlla tabaraka wa taala jàngi xam-xamu tawxid ba mën a jox yàlla cër bam yeyoo ndax xam gim xam ne ku sa woote jëm ci yàlla ku ma sa baax soobu jëm ci yàlla dangay jiital xam-xam boobu te mooy wéetal yàlla tabaraka wa taala ndaxte mooy tàmbul bi mooy digg bi mooy yemukaay ba jëf ju baax ju nekk itam bu fekkee la ko fondement mooy mooy xam-xamu diine jëf joojee day baax di gën a jëm kaw rek waaye du wàññeeku mukk kon loolu la sëriñ bi xam tax waxtu wu nekk mu ñuy soññ ci ñu gën a yeesalaat pas-pas yi gën a jàngiwaat xam-xamu tawxiid ba mën a jox yàlla cër bam yaroo loola itam la sëriñ bi xamoon ba jiital xam-xamu tawxiid bi lay xamal ku yàlla moom la jiitaloon ci mbooloom xam-xam yi wa afyadul ulumi lil qulubi ilmul ubudiyati wa rububi naka noonu itam seex muhammadul muntaqa xafisahullahu wa raa waxtu wu nekk mi ngi naan nañ jaajuwaat nañ jaajuwaat gën a yeesalaat pas-pas yi gën a yeesalaat euh, li ñuy gëmee yàlla tabaaraka wa taala di ko gën a settantal di ko gën a wéral ba mu dëppoo na yàlla bëggee ñu gëme ko na ñu koy gëme noonu te loola itam dafay feddliwaat di yeesalaat ndigalal sëriñ bu mag bi ndax waxoon na ne wal himma tarfaa kullaha lil xaqi wa kil bi azzin laa tamil lil xalqi nee na seen yitte yépp ak seen pas-pas yépp na ngeen ko yëkkati jëme ci yàlla tabaaraka wa taala te pas-pas boobu nag boo ko bëggee yëkkati jëme ko ci yàlla tabaraka wa taala mënoo caa ñàkk jiital nag nooy gëme yàlla muy tawxiid ba wéetal ko ba jox yàlla lam yayoo waaye sëriñ Tuubaa radiallahu anhu andi ñaari bayit yoo xamante ni taalibe ak jullit bu ko settantal te gëme ko noone jëfe ko da nga mën wéetal yàlla danga ko mën a jox itam cër bam yayoo lam ca jiital moom sëriñ bi dafa wax ne sunu borom day la ngay njëkk a gëm ci moom te war koo gëm ci moom mooy da ngay gëm ne ko am la mooy yàlla ko am la boo gëmee ne yàlla ku am la itam na nga ca toftal ne kenn amalu ko allahu mawjudun bi gayri mujidi yàlla ku am la te amam googu itam amut ku ko jiitu ba bind ko moom yàlla waaye huwa al awalu wal axiru wal zaahiru wal baatin yàlla ku am la te amul ku ko amal allahu mawjudun bi gayri mujidi nga teg ca ne fa innahu mujidu kulli mujadi yàlla moomu ba mu amee ba noppi itam ku am moo la amal mooy kuñ bind ginnaawam moola bind te moom kenn bind ko loola kon ku ko xam muy allahu mawjudun bi gayri mujidi fa innahu mujidu kulli mujadi nee na nanga ca toftal nag ne yàlla moomee dafa mat sëkk amut fenn fu muy wàññeeku amut benn sikk te matam googee ci la matale képp koo xam ne matul tey mbindeef allahu kaamilun mukammilun siwa waaye nga teg ca itam ca njàngalem sëriñ bi ca tawxiidam juréy ja mu ne nga xam ne itam àdduna ak li ci biiram lépp ci ndigalal yàlla lay dox te moo ko moom wal kawnu kulluhu lahu wa ma xawa kon ñaari waye nga noon yoo xamante nii taalibe bu ko settantal jullit bu ko settantal war na laa doy sëkk ci nga am tawxiid ju wér muy allahu mawjudun bi xayri mujidi fa innahu mujidu kulli mujadi allahu kaamilun mukammilun siwa wal kawnu kulluhu lahu wa ma hawa mu tegaat ca leneen tam ca njàngaleem mu rëy moo moom sëriñ bi ci tawxiid ak bëgg ñu teg yàlla barab bam war a mu wax ne bokk na ci li nga war a gëm tam bokk ci ponki gëm yàlla mooy nga gëm ab dogal waaye gëm ab dogal am na solo lool ndax da ngay xamee ne lépp lu am yàlla bëgg mu am te ci kàttanam la amee su ko bëgg toon du am te itam di mbindeef mënu fexe ba def ko loolu mooy gëm ab dogal moo xam muy dogal bu neex wala bu naqari waaye nag boo ko gëmee ne lu xew yàlla itam la ca toppaat te am solo lool te ñu bari di ko sàggane mooy nga gëm nag ne eh, nga gërëm loo dogal boobee nangu ko loolu la sëriñ bi doon wax ci masaalikul jinaan ne fa xaysu ma yajri qadaau rabbi fa min lahu duna itiraabil qalbi fépp foo xamante ni dogal borom bi tabaraka wa taala jéng na jëm fa nee na nanga jéem jëm foofee te bañ cee am naqaru xol

sunu واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على السلام على bismillahi irrahmani irrahim ñoo ngi toll woon ci sëriñ bi radiallahu anhu fi bëgg ñu teg fa yàlla tabaraka wa taala ci wéetal ko te nangu ab dogalam gërëm loo ko ndax nee na lu yàlla dogal na la neex nanga ko gërëm loo fépp fu dogalab yàlla bi jëm nanga fa jéng jëm fa te bañ am aw naqar fa xaysuma yajri qadaau rabbi fa min lahu duna tiraabil qalbi mu teg ca ba tey ci njàngaleem mu rëy ma ci nu ñuy wéetale yàlla mu teg ca moom sëriñ bi ne na nga xam ne lu nekk mën ngaa kook moom wala ku nekk mën ngaa teqalikoog moom te am ku ko wuutu ku ko remplacer ba mu des yàlla borom bi rek mooy ki nga xamante ni mbindee fi munta doylu mën naa doylu ci ku nekk ba mu des ci borom bi ko bind lépp lu mu teqalikool wala képp kum teqalikool itam mën naa am ku ko wotti ku ñëw taxaw di ko taxaw nam ko doon taxawee bam mu des yàlla tabaraka wa taala is kullu ma faaraqtahu talqa badal minhu siwa xaaliqika almuudil amal loola kon mi ngi ñuy xamal fu ñu war a teg yàlla di ñu xamal ne mënuñu koo ñàkk loo mënta ñàkk nag danga koy jàpp-jàpp gu wér gëm ko gëm gu wér mu xamal nañu itam ne ki la mën a jox njariñ mooy yàlla ki ko mën a xañ itam mooy yàlla ki la mën a teg loraange mooy yàlla ki la ko mën a teggil itam moo yàlla waaye nee na du mbindéef loolu nag ku ko xam te gëm ko lu mën a dikk rek da ko mën a gàddu yanam inna alladi yuulika man an aw darar huwa ilahuka taala la basir nee na ki la mën a jox njariñ man la koo xañ teg la loraange wala mu teggil la ko kenn dong la te mooy yàlla nee na du caagéene mbindeef ndax mu ne mbindeef yi mënuñoo jariñ seen bopp te ku munta jariñ boppam munta jariñ moroomam kon na sukkandiku ci ki bind mbindeef yi te mooy yàlla wal xalqu laa yanfau nafsahu layaad fa kayfa gayrahu idan min al ibad nee na mindee fi jëriñuy sukkandiku ci ñoom ndax mënuñoo jariñ seen bopp bu ca yàlla àndut te ku munta jariñ sa bopp nag mënoo jariñ sa moroom kon nangay sukkandiku ca ka nga xam ne amul moroom laa sharika lahu wala nadira lahu wala didd wala nidd te kooko mooy yàlla tabaraka wa taala loolu lépp nag sëriñ bi mi ñu koy xamal ngir ñu bëgg a teg bëgg ñu teg yàlla jox ko cër bam yeyoo mu wax nag ñaari way yoo xamante ni yu mat di settantal la ci téeréem bi mu tudde tasawudu sixaar mu wax ne bokk na ci li mu kàllaf war a gëm mooy mu xam ne jeexit jum gis ci kaw suuf walla jëf ca yàlla la jóge waaye jógewut ci mbindeef yi jeexit wala jëf jum mën a gis ci kaw àdduna ca yàlla la jóge yàlla ko bëgg tax mu am su ko bëggutoon du am waaye nee na jógewut ci mbindeef yi wa wajaba al imaanu anna al li rabbina wala yakunu lil wara nga ne ko amu ah, ne waaw ndaxte nee na liy mbindeef yépp yépp amut ku ci mën a jeexiital wala nga ce jëf lenn te yàlla àndu ca ba loola mën a sotti bu ca yàlla àndu du sotti mu ne jeexit ak jëf joo man di wax nag laa wax mu ne lii ma la wax nag mooy li wér laysa yakunu fi jamii al muathirun fi atharin ma dal yaqin nee na jeexit ak jëf joo man di gis bu fekkee yàlla àndu ca jeexit jooje munta am mu ne daa lii ma la wax nag man sëriñ Tuuba al mooy li wér bu ci werante kon nag fal muminul xaq jullit boo xamante ni bu dëggu la al muslimul ku gëm yàlla ku dëggu te jébbal sa mbir yàlla te jébbal ka dëggu wal muxsinul xaq tey rafetal sa digganteek sa borom di rafetal sa digganteeg sa morom te rafetal ga dëggu kooka laa yaxaafu illa allah du ragal kenn kenn kudul dul yàlla wala du yaakaar kenn ku dul yàlla wala yastaki illa ila allahi du jàmbat ay jafe-jafem ku dul yàlla foofee day fële sëriñ bi nekkoon te bëgg ñu yegg fa nag moo taxoon mu waxoon ci masaalikul jinaan ne laa tastaki lxaajaati lilxalaayiqi bal mil biha ila alqadiri alxaaliqi nee na say jafe-jafe ak say aajo bu ko jàmbat mbindeef fi jàmbat ko ca ka bind mbindeef yi ndax mooy ka am kàttan te mooy yàlla tabaraka wa taala ca loolu la nekkoon moom sëriñ bi di ñu ko jàngal bëgg bëgg ñoo teerte itam ñu yegg ca ba nañu woon loraange foo ko fekk ci yàlla la la jógee bu ko neexutoon du am te su ko neexee itam mu jële ko fa njariñ itam ci yàlla lañ koy séentoo kum bëgg a jariñ la kum bëgg xañ xañ la waaye jógewut ci nit ku weex wala nit ku ñuul ad durru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani ca la nekk ba yegg di wax ne moom amul loraange ju muy ragal juy tukkee ci mbindeef di dal ci kawam ndax loraange ju tukkee ci mbindeef dal ci kawam rek daa neex borom bi tax mu jóge ci mbindeef moomee sabab la ca rek waaye ka ko bëgg te dogal ko kenn la ta mooy yàlla tabaraka wa taala moo tax mu ne woon ragaluma loraange ju jóge ci mbindeef di dal sama kaw ginnaaw bi ma fabee sama mbir yépp joyal ko mu jëm ci ki bind mbindeef te kooka mooy borom asamaan lastu axaafu durra xalqin baadama fa wattu amriya ila rabbi sama ca loola nekk ba di xam le njariñ li nga xamante ni wéetal yàlla am na ko def yàlla muy kenn am na ko jox yàlla cëram ba mu yeyoo am na ko njariñ lam am ak ragal yàlla cër ba mu am mu yegg ci ne boo demee ba teg yàlla fa mu war a tegee ci ragal goo ko ragal képp ku dul yàlla daf lay ragal képp kuy mu def daf lay ragal fa xaysuma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad soo ragalee yàlla mi kenn te ragal ga dëggu képp ku dul yàlla daf lay ragal jox lépp cër loola itam ca la dem ak ñun ba ci masaalikul naan mu wax ñu ne sunu borom day am na yoo xamante ni mbindee fi jërul ñu cee sonn ndax daf leen koo garantil luñ la garantil war lul la ko nag nee na jërul nga cee sonnu loo war def kon lañ gàll ci saw loos tey sàkku sàkku ko ci yow ca la nga moom nga war a xëntewoo di ca sonn te mooy jaamu yàlla ak xam noo koy jaamoo tam te sellal ko dëppale ko sunna si yonent te def ko ngir jumam nee na loolu nga war a yittewoo waaye dikk sab dikk muy waxtu wi nga xamante ni bu jotee sunu borom jàpp sag ruux nga faatu nee na loolu sax daanaka jël nga cay concentré wu ak di ca xalaat lu bari ndax nit ku nekk am na weer wu muy dem nit ku nekk am na bis boo xam ne bu jotee ca lay dem nit ku nekk am na uh, minute boo xam ne su jotee ca lay dem nit ku nekk am na seconde boo xam ne bu jotee du ko jéggi ndax loolu sunu borom moo ko dogal te nee na noppi na ca ku gëmee yàlla noonu nag doo ragal ak dee sax rawat na waaye nag dangay ngay yegg foofa naka noonu wërsëg yàkkamti wërsëg jëru ko ndax fawwu danga nga jot loolu la doon wax ne wa faragal mawla min arbain ajal wa xuluqin rizqin wa xalqin kul ajal mu teg ce ne képp ku sàkk loo xam ne yàlla dugalu ko dangay ngay sonn kër-këri ba sonn te doo ca jot te la yàlla bëggoon rek mooy am fa kullu man talaba ma lam yuxlaqi taibatu la dahrihi lam yurzaqi loolu la sëriñ bi ci la nekk leeral ñu ci yu baree baree bare xamal nañu mindee fi buñ manko woon ngir jariñ la te yàlla àndu ca doo jot ca njariñ loolee suñ manko ñoom ñëpp itam ngir lor la te yàlla bëggut lor ji dal ci sa kaw lor jógee du dal ci sa kaw kon loolu nañ koy bàyyi xel loolu nag ci la sëriñ bu mag bi nekkoon ak sayxu Muhammadu Muntaxa itam ci la ñuy son ñu waxtu wu nekk wéetal yàlla di ko jox cëram tey bañ a dugg yul suñ yoon nekkut moo xam muy ay wax wala muy ay jëf ngir jëfe xadis yonente ba mu waxoon ne min xusli xusni islaamil mar i tarkuhu ma la yaanihi ak téye sunu làmmiñ ci jullit ñi téye sunu loxo ci jullit ñi al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi yàlla nañu yàlla boole jéggal te boole ñi nga xamante ni eh, dañuy jëfe ndigal tey bàyyi tere yàlla na fi yàlla bàyyi sëriñ bi bam yeggale ay naalam cenam ko bëggee tañ ànd ko moom wa axiru daawaana an ilhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu